ku ca julli juróom benn rakkaa bu ci ne faatiya ak innaa ahtaynaaka fukki yoon dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon defe te dees na ko bindal tuyaabay junni aj ak junniy umra ak yoolub ku saraxa junniy dërëm mel na ni it ku seeti junni ñu wopp ak ku gunge junniy néew ak ku jàng ab kaamil te dees na ko ca bindal itam tuyaaba ju ëpp jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at